l'islam lan la wax ci góor jigen bo xamantene ka dafa génn aduna ndax am nañ droit sul ko ci armer ndax am nañ droit aussi jullee ko ak yoy est-ce que julit la. wa julit la wa su fekke mu ngi def liko l'islam lislaam sante sant yëpp. di jaamu yàlla bu de buñu bu fekke dafa def loolu bañ ray ko. wala mu deel bopam donc bayil xel ne góor jigen ci alcorane tuddu moy ki jël góor diko ko sëyee. ki ki koy séyee moom ni ñu doon séyee ak ñi ko doon séyee ñëpp yoon da leen di rey donte ay jullit lañ bu leen yoon reyee nag kuñ ci rey ba pare bu lay jullee borom dara ji du la jullee. dañuy seet ku ñàkk fayda rek ku mel ni man mu jullee kuñ ko ñàkk fayda ni Iran ko xam ne amul daraja ku bëriw ko amul daraja kon ku mel noonu bu dee jullit la laax bu dee jullit la mm-hmm. su deewee borom daraja du ko jullee ku ñàkk daraja moo koy jullee ñu dem suuli ko ah waaye buñ ko suul muy dem mais jëfam rek ko fay fekk. amoo kenn ku ne buñ la dañu naan d'habitude euh, su fekkente ne góor jigéen. maa ne rek yooyu. maa ne mm-hmm. xam nga kan mooy góor jigéen. waaw. xam nga mooy kan. mooy kan waaw. mooy ki sëyee góor. mooy góor ki sëyee góor kii dee tey moom dañ ko doon sëyee. mboolem kuñ xam ci ku ko doon sëyee ne kuñ ci xam rek. nga mm-hmm. xam ne daan nga ko fréquenté daan ko sëyee. jàppal ne yooyu boo dee kenn borom daara ji du la jullee ñoom ñëpp a yem àtte ki nuy séyee ak ki koy séyee yëpp bokk àtte ci nga xam ne muy kii dee tey ñi ko doon seq ak moom mhm. ak moom li ñuy seqal ñëpp a bokk àtte benn àtte bi la waaw ñoo bokk àtte bu fekkee bu ñu leen di jullee borom daara du ko jullee mhm. waaw voilà lan la lislaam wax ci góor jigéen rey dañ koy rey góor jigéen moom charia dem ci wax mooy dañ ko alxuraan moo ko wax dañ koy rey bàyyi bàyyil xel dama bëgg nga bàyyi xel ne mm-hmm. góor jigéen mooy kii séyee góor ki bàyyi jigéen ñi dem di wuti ay góor kooku laa bëgg nga xam ne mooy góor jigéen loolu la sénégalais yi xamul d'accord di nga waa jii dee tey mm-hmm. képp ku ko mas a séyee ku mas a doon nga mas a seq ak moom yow de àtte buñ ko àtte dañ la koy àtte man nag àtte ci waa ji damay bañ bu ma ci waa ji àtte ma ci deem waaw waaw ah, sama yoon ñëwu ci deewu jàmbur parce que famille jàmbur la te man duma ma xaawi sutura nit. waaw waaw uh-huh. ah, man du ma xaawi sutura nit du ma wax ci nit lu ñaaw ku dee moom wax lu rafet rek a baax. Uh-huh. yeneen bi def ne uskuru mahaasina mawtaakum uh-huh. nit bu dee la ngeen xam ci lu rafet wax leen ko la ñaaw ngeen maandu ci. parce que yeneen bi daf ne bu leen tudd lu ñaaw ci ku dee lépp lu rafet bind leen ko ci moom. d'accord merci beaucoup.